wa ridwanillahi taala al akbar anil hamdil xadim sayxina wa wasilatina wa qurrati aynina cheikh ahmadou bamba xaadim rasul mbokk yi ginaa bu ñu sante yàlla julli ci yonentam bi seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziara di leen baalu xaq bu baax te di leen baal di ñaan yàlla boo leen jéggal di ñaanal cheikh muhammadul muntaxa mbakke xalif général kulli murid sun borom subhanahu wa taala mu yàggal ko fi lool te wéyul ko ba lepp lu yéene liggéey sëriñ Touba ma àggli ko ànd ko mboolem jullit yëpp ak mboolem taalib yëpp ñoo ngi amaat mbégte dellusiwaat ak yéen ci seen jotaay bii di ahlu xasida ngeen baaxoo ko am antenne bu jot bu fukki waxtoog benn ci suuba jotee waaye di ko amee fii ci seen groupe whatsapp daayira sifa usudu di kuréel boo xam ne dafay lëggéeyal sëriñ tuba ci ay anam yu bare bare waaye rawatina ci xasaydam yu tedd yi nga xam ne dafa bokk ci li ñu sëriñ bi jagleel di ziar itam mbokk yi nga xam ne ñooy topp jotaay yu ñuy amal fii ci groupe whatsapp bi waaye di ko toppee ci youtube bi ñoom ñëpp ñoo ngi leen di jaajëfal te di leen sant di ñaan suñu boroom mu defal dégg ak topp ba njëriñ yi nga xam ne ñu ngi koy waxtaanee ci daara ji Euh, ñu mën ko jëriñoo ñun ñëpp ci barkeb sëriñ bi ñu fas yéene dellusiwaat ak yéen ci ngëneel yi nga xamante ne xasida yi làmboo nañ ko euh, mu nekk loo xam ne dafa bokk ci li ñu sëriñ bi bàyyee euh, defal ñu ci lépp loo xam ne dañ ko yittewoo ci Euh, mbiri àdduna ak alaxira xasida nag jamono ju nekk niñ koy faral di waxe bu ñu gisul woon sëriñ bi mu bind wax ci njëriñu xasida te mu wóor ñu ne lii mbindum sëñ Tuubaa euh, loolu jàng ko dafay war ci bépp jullit waaye rawatina koo xam ne ab murid la te yaakaar sëriñ Tuubaa ngir ne sëriñ bi euh, message yi mu doon jàllale liggéey bu mu doon defal yonte bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu doon dayaale ak suñu boroom subhanahu wa taala lu mu doon xamal mbindeef yi di leen laabiir di leen jàngal seen diini loolu lépp ci xasida yi la ko doon defee kon day mel ni ku bëgg a xam sëriñ bi faw mu nangoo jàng ay xasaayidam euh, léeg-léeg sax dangay faral di gis euh, mbokk yoo xam ne dañuy diingat mbindum sëriñ Tuubaa euh, fekk loolu la koy waral dañ ko dul yër dañ ko dul yër ndax koo xam ne léppam euh, njëriñal jullit ñëpp la koo xamante ni bu fay buy wax ndax sëriñ bi waxtu woo xamante ni moo ngi wax rek dafay wax ngir jullit ñëpp mën a jëriñu kon ñi nga xam ne léeg-léeg da ngay faral di gis ni dingat mbindum sëriñ bi dañoo gëstuwut ay mbiram waaye sëriñ bi moom mooy ki nga xamante ne mooy xam bëgg ku ko xam rek euh, bëgg ko te xam seigne touba nak mi ngi nek ci xam xasida yi mbokk yi kon nañu lu ci di jang xasida yi sëriñ tubaa yi lutax ñu ne seigne bi su daan wax ñëpp lay waxal jullit ñepp moy dafa wax ne suñu borom def ko yonni ngir mu leeral alquran yonni ko ngir mu leeral sunnas yonni bi sallallahu alayhi wasallam yonni ko itam ngir mu leeral li nga xam mom la borom ñenti ngir yoyu andi won te mooy imaam malik ahmad ibnu hanbal abu xanifa ak imaam safiru waaye yónni ko itam ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëpp kon sëriñ bi ñëpp la daan waxal moo tax mu wax ne arsaltani li zikrika al xakimi wa li xadisi al mustafa al karimi wa lil masaixi wa lil aimma wa zaka gaayatul muna wa rahma Sëriñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu waxoon ne warlul naa leen ay taalif yoo xam ne ku ab yonente rek sunu borom mën na la cee gindi maanaam taalif na ay taalif yoo xam ne def koo taalif bàyyi ko fi mu nekk ay xasida yoo xam ne képp ku dul ab yonent rek soo ko dee jàng di nga ci mën a gindeeku loolu nag ba mu koy wax fekk na mu xam ne ab yonent dootul wàcc ci ginnaawam waaye bu doon ab yonent dana wàcc ci ginnaawam itam su ko ab yonent jàngee dana ci gindeeku mooy la muy wax ne alayya tawaalifu allazi yahtadi wala lati alayya tawaalifu allati yahtadi biha إذا سأل ربي غير من فاز بالوحي ba tey sëriñ bi wax ne sama xasida yi سبحان وتعالى borom subhanahu wa taala ba tax na képp koo xamante ne ak njub te jaarale ko ci di sama borom dana la ko ci defal ilahi al huda wa kullu man raama hudaahu bi hada jubug sunu borom nag mooy li nga xamante ne mooy li am solo ndax mag ñi dañuy faral di wax ne alquran lu muy am am solo alif lam mim zalikal kitaabu laa rayba fiihi hudan googu nekk fii alif lam bi mooy li ci gën am solo sunu borom wax ci alquran ne wa man ittabaha hudaaya fala yadillu wala yashqa képp koo xamante ne nga sama njub euh, doo réer fii ci àdduna waaye bu ëllëgee àllaaxira itam doo fa texe di te amul sikk sàkk ci ne xasida yi bokk na ci li gën a gaaw ci jubal nit ki ba mu jub teg ko ci yoonu siraatal mustaqim àggale ko ci boroomam subhaanahu wa taala sëriñ bi wax na ne xattiya yusilu murida tarbiya lizil jalaali wa murida tarxiya kon nag képp koo xamante ne yaa ngi sàkkoo tegee ci yoonu siraatal mustaqim rek war di jàng xasida nga euh, sëriñ bi del wax ne xaraba min sinriya iblis al marid wa bi xasaa idiya yahtadil murid mu ne iblis euh, daw na jëm ci keneen kudul moom daw na jëm ci kudul moom te ci sama xasida yi ci la murid bi di gindiko kon day melni bepp murid boo xamante bëgg nga gindeku deñ ak reer faw nga nango jang khasida ndax señ bi dafa wax ni ci khasaidam ci la murid bi di gindiko haraba min sinriya iblis al marid wa bi xasaidiya yahtadi murid sëriñ bi liggéey bu mu doon liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lépp lépp ci xasida yi la ko doon defee dafa wax ne bi xurmatil mustafa man sirtu xaadimahu bin nazmi wal nasri sañoon summa mizaana liggéey boobu tam nekk loo xam ne euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci jëmmi boppam moom yonent bi sallallahu alayhi wa moo sàkk woon ci suñu boroom ngir sëriñ bi ñëw nekk ku koy lëggéeyal ki koy yeesalaatal diine ji euh, ki koy leeralaatal alquran ak sunna moo tax euh, sëriñ bi wax ne raama rasulallahi min ilahi kawni xadimahu wa abdallahi euh, kon foofu luñ ciy déggee mooy sëriñ bi kat lim doon def def ci amoon ndigalul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ginnaaw bi nga xamante ne yonente bi sàkkoon na ko ci suñ borom ngir mu ñëw liggéeyal ko te suñ borom jox ko ci ndigal euh, ci la wax yonente bi ci la wax sëriñ bi euh, ne ko bindal te liggéeyal ma moom la sëriñ Tuubaa di wax ne karramani xayrul baraya biktubi bi xidmati wallahu yuhli kutubi ngeen gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam moo ma teral ne ma bindal ci lëggéeyal ma bindal ci lëggéeyal ma waaye mu ne wallaahu yoon li kutubi bind moom nekk di xasida yi suñ borom bi subhaanahu wa taala moo ko koy yëkkati eh, kaweel ko ba mu kawe yëkkati ko mu dem ba ca aras ak kursi yu moo tax daan na bind di wax ne eh, kitaabati lil arshi wal kursi yi rafaaha man jaada bil yi dafay mel ni nag eh, mbind moo xam ne dafa yëkkatiku ba ca arasa kursi yu xasida yi Sëñ Tuubaa yi rek mooy li nga xamante ne moom lañ ci xam loolu def naa day wane maagaayu xasida sëriñ bi it mu mel ni ba muy tàmbalee liggéey bu am solo boobu nga xam ne kenn moo su ko defal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekk loo xam ne suñu borom ci boppam moo ko ko jagleloon ba tax muy wax ne sakartuhu is xasani bi xidmatil maaxisani maa ngi sant yàlla suñu borom mi nga xam ne moom ma jagleel ma ñëw nekk liggéeykat yonent bi sallallahu alayhi waaye nekk xayrul xayrul xadim wax ni itam xaddamani llahu ala alxuddaami bil mustafa al musabitil axdaami suñ yàlla jiital ci mbooleem ñi mas di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi suñu boroom sëñ Tuba moom la ci jiital sëñ bi mooy ko jiitu ci mbooleem ñu doon liggéey yonent bi sallallahu wa sallam moo tax mu mel ni dafa waxoon ne ijal tawaalifi lati uridu taalifaha fawzan liman yuridu yow yàlla suñ boroom maa ngi lay ñaan nga defal ma xasaayid yi nga xam ne moom lay fas yéene taalif di ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci jëfee ndigalam nga defal ma ko mu nekk ak texe ñeel képp koo xamante ni bëgg na ak texe waaye di ko sàkku ci xas kon loolu defe naa dafa nekk loo xam ne day jullit deful ci kaw suuf lu gën a kawe sàkku ak texe eh, te amul sikk sàkk ci ne loolu xasida yi làmboo nañ ko xasida yi Sëñ Tuubaa nag dafa wuute lool ak xasida yi nga xam ne eh, ay yeneen i borom xam-xam ñoo ñoo leen bind ndax xam ngeen ne xasida moom ba léegi am na am nañu koy bind ba ci jamono yi ñu toll nit ñaa ngi bind xasida waaye fuñ tuddee xasida rek xel yëpp dañuy dem ci sëriñ Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul yëpp dañuy delluwaat ci mbindum sëriñ Touba kon day ni sëñ bi moom euh, def na ci lu xasida lu kenn mën na ci xasida lu kenn euh, mënul moo tax mu am ci xasida lu kenn amul ba buñ tuddee xasida rek xel yëpp dem ci mbindum sëriñ Touba bokk na ci lu tax mbindum Sëriñ Tuubaa wuteeg mbindu gaa yu baax yi ya ko woon mooy sëñ bi dafa wax ne kitaabati min lawxi rabbi tunqalu laa yamtari fiha nabihun yaxqilu sama mbind man Sëriñ Tuubaa euh, nekkul loo xam ne dafay génne ci samam xel waaye ci lawxul mahfuus foofu lay toxale bindam sëñ Tuubaa kon ci lawxul mahfuus lay toxaloo euh, mu wax ne ak aktubu naafilan min al lawxi wa min qalamihi wa fi xurufi lam amin maa ngi bind waaye maa ngi toxalee ci lawxul mahfuus ak ci xalima sunu borom ba subhaanahu wa taala mooy li nga xamante ne egg seegul ci xalima ga day mel ni ba àdduna sosoo ba léegi la ko tàmbalee ci yonent yàlla Idris mi nga xam ne moo njëkk a bind ci kaw suuf moo njëkk jafandikoo jëfandikoo pilim ba ci suñ jamono ji mbindum sëñ Tuubaa lañ gis mbindum sëñ lañ gis muy koo xam ne suy bind day janoog lawxul mahfuus ak xalimag suñu borom ba di fa toxalee li muy bind te xam ngeen ne max mahfuus nag lépp loo xamante ne gis ngeen ko mu xew ci àdduna loolu fekk na suñ borom bindoon na ko ca lawxul mahfuus moo tax sëñ bi euh, ngay gis ci mbindam loo xam ne daf dafay dafay bind dara ñu dem ba jëmmi jamono mbir mbir moom a xew loolu day feeñ loolu ci mbindum sëñ Tuba maanaam bind dara jëm ba ay jëmmi jamono mbir mooma eh, daal di daal di xew loolu day feeñ ci jamono ju nekk ci mbind sëñ Tuba lu ko waral bokk na ci mooy li mu daan toxalee ca lawxul mahfuus te lawxul mahfuus lépp lu xew ci àdduna fekk na yàlla la bindoon na ko bokk na ci li waral mbindum sëñ Tuuba gën a ci mbooleem euh, mbind mu dul alquran ak xadis ndax xam ngeen ne suñu dafa wax ne euh, wafaaxat gayra alqurani wal xadisi mhm. wafaaxat gayra alqurani wal xadisi mbindum sëñ Tuuba moo gën a kawe fa suñu lu dul alquran ak xaddis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wajan kitabati ilallahi ahab min kulli xattin wa ilal maahi ahab wa ilal maahi ahab xad jaala al ilahu xattiya ahab ilayhi min kulli kitabatin tuhab min kulli kitabatin tuhab liyaalami naziru anna xatti ila ilahina ahabu xatti bépp mbind mu ñuy bëgg di ko sopp rek Sëñ Tuubaa nee na sama mbind moom mooy mbind mi yàlla gën a bëgg ci mbooleem mbind bokk na ci lu waral loolu mooy sëñ bi euh, dafa wax ne qaada li sadriyal alimul kutuba bi xarqi aadatin wa qaala li tuba nee na suñ boroom subhanahu wa taala moo ko wommatal euh, mbooleem xeeti téere yi amoon njëriñ yëpp loolu nag mboolem téere yu wàccoon ci yonante yëpp day daal di bokkaat ci biir ndax loolu téré yooyu ñoy téré yi gëna am jëri mu né téré yooyu yëpp nak suñu borom def ko fab defal ko ci dënnam moom sëriñ Touba jox ko ndigal ne ko bindal waaye nag def bu mu ko def ci dënnam itam nee na defin boo xamantene ne defin bu xot ci baax la mooy defin bu yéeme yéeme mu ne ko nag jox ko ndigal ne ko bindal kon sëñ bi euh, bu muy bind amoon na ci tam ndigalul suñu borom bi subhanahu wa taala ba tax na mbindam du mën a bokk ak mbindum koo xam dafa jàng rek ba am xam-xam di bind di layral di yaatal donte loolu am na solo lool bind la boo xam ne comme ni ko Sëñ Tuubaa waxee kitaabati faaxat xasaay xasidati faaxat xasaidal kiram wali taxudu abdan xayra maram ci ngay xame ne amoon na ay gaay yu tedd yoo xam ne daan bind ay xasida na ci doo xam daan nañ taj yonente bi sallallahu alayhi wa ñoom Xassaan ak ñoom Busayr a nga xam ne seeni xasida yooyu suñ suñ borom def leen koy nangul reconnaître ko def ci ay leer ak secret ak ay ngëneel waaye nee na xasida yooyu kat dañuy kawe kawe kawe kawe mbindam mi di xasayda ñoo leen gën a kawe kon loolu dafay wone màggaayu xasida <coughs> bokk na ci li tax mbindum sëñ Tuubaa gën a kawe mbindu gaayu baax yee ko fi jiitu woon Euh, mooy sëriñ bi dafa wax ne lubbi munawarun bi nuuril waxyi waqaada li xayral ulumil muxyi sun borom subhaanahu wa taala moo leeral euh, ab xolam ci leeru waxyu mooy leer gi nga xam ne moom lay def ci xolu ab yonente def ko ci xelam euh, ba muy jottali lu leer loo xamante ne lépp lu wax rek day nekk wax yàlla suñu borom bi subhanahu wa taala mu ne leer googu yàlla di def ci ab yonente nag leer googu la suñu borom def ci moom Serigne Touba bu noppi nag wom ma tàllaat ko joxaat ko waxaadali xayral ulum xeeti xam-xam yi gën xam-xam yi gën yépp suñu borom fab ko defal ko ko waxat na it daxat ni ilal xatti nasihati lil wara li wajhi lazi li xaada ajran wa asfa suñu borom moo ma ne bindal te laa biir bindee fii moo tax nga gisoon muy wax ni wa inna ni lil xawmi ajmaina zu nusxatin li kay uqiima diina man Sëriñ Tuubaa daal tey jii boromuk laa biir laa ñeel be ñeel mboolem nit ñi ñun mboolem bindeef yi ngir taxawal diine wa inna ni lil xawmi ajmaina zu nushatin likay xima diina kon nag mbokki xasida yaa ngi noonu nañ ci gën a góorgóorlu di leen jàng bu baax a baax a baax baax di sellal njàng mi di ko def itam di ci jublu ak jaamu yàlla ak lëggéeyal ci sëriñ bi jaamu yàlla lëggéeyal ci sëriñ bi ndax xasida moom jaamu yàlla la sëriñ bi dafa wax ne wajaal xuruufi kullaha ibaada yaa man lahul ibaadu wal ibaada yow yàlla mi boroom jaam yi defal ma sama xasida yi lépp muy ak jaamu kon xasida jaamu yàlla la jaamu yàlla nag dafa am li mu laaj soo demee ci alquran di nga gis yàlla muy wax ni wa ma umiru illa li yaxbudu llaha muxlisina lahu diina sellal sellal jaam yàlla dafa laaj sellal yàlla moo ko digle kon ki jàng xasida war naa góorgóorlu di ko sellal bu baax a baax a baax sellal gi nag bokk na ci saa bu nit ki dee jàng xasida na fekk mu laab na fekk mu sol yére yu sell yére yu sell yére yoo xam ne amul sobe soo ko mënee soo jàng xasida na nga toog boo toogee boo mënee ferenkulaayu nga def ko ndax ferenkulaayu soo ko mënul itam nga toog toogin boobu nga xam ne moom la taalibe di toog bu toog taalibe di toogee ci kanamu sëriñam ndax noonu mooy ni nga xamante ne noonu la ko sëriñ bi àndee ci masaalikul jinaan ba muy lim teggi ni kuy tudd yàlla te xam ngeen ne jàng xasida tudd yàlla la jàng xasida zikar la ndax Sëñ Tuubaa moo ni kitaabati zikrun sama xasida zikar la te dafa waxoon ne waxudda min aadaabi zikra zakiri juluusa abdin fi makaanin taahiri mustaqbilal xiblati zaata rabbon aw mutawarrikan kaman salla fani mooy loolu ma lim léegi rek وهد من آداب ذكر الذاكر جلوس عبد في مكان طاهر مستقبل القبلة ذات ربع أو متوركا كمن صلى فعل طيب رائحة إذ لا تخلو مجالس العلم إذا ما نجلو عن الملائكة باستماع ومؤمن الجن على الإجماع. Sëñ bi dina booy jàng xasida ginnaaw boo solee lu laab jublu penku Eh, daal di fereñku yu sol lu laab nekk ci barabu lab soko soo nangay mënee nangay nangay nangay nangay parfum ay xeeti eh, parfum yu neex yu sel xeet bu neex nangay yo yor bu neex dal ndax amul sikki sàkka ci ni waxtu wo xamantene ñoo ngi jang xasida jinni yi nga xamne dañu gëm yalla jinni yi gëm yalla yi ak malaika yépp dañuy ñew tok fi sawet di la déglu te euh, loolu borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci waa ahlu badrin itam dañuy déglu xasida yi day xasida yi dañ dañ leen di jàng fa ñoom xasida yi dañ leen di jàng fa waa ahlu badrin yi di leen jàng ca rawdatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xasida yi dañuy jóge fii di dem ba ca yonent bi sallallahu wa sallam di ko di di ko ziyaara moom la sax Ibrahima Diop al-Mash'ari doon wax ne zaarat xasaiduka almadinati isbiha quri'at wa surra annabiyu wa hudaatuhu mu ne xasa xasa sa xasida yi yow Serigne Touba dafay ziyaara yi yonent bi sallallahu wa sallam ñu di ko fa jàng muy bégloo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sa Ibrahima Diop almasari ma wax loolu bokkoon ci mag ñi toppoon sëriñ bi waaye sëriñ bi itam am na fu ko wax ci ay barab yu bari mel na ni bokk na ci euh, min alxadimi ila almaxdumi misani la yantaxi ajruhu kaylun wa misani kaylun wa misani fuñ koy jeexale rek la taalifkat ba waxul wax ne xas yi day day yar xel di sellal xolub murit te day rocci say ñaawteef nga far yoru melow tuuba xasida yi day yar xel di sellal xolub murit te day rocci say ñaawteef nga far yor melow tuuba dalay tub ay xam-xam nga ciy dégg ay xikam Euh, da lay tëbb ay xam-xam nga ciy dégg ay xikam te day yéegi sag ruux ci ruuxuk Sëriñ Tuuba ku koy jàng tey sellal melaw mag ñi woon la lay nga doon tànneef bu am cër ci Tuuba ku koy jàng tey sellal meloo mag ña jiitu woon dalay soob nga doon tànneef wu am cër ci Sëñ Tuubaa te day wamatit sag ruux ci leeru Muhammadu te loolu lépp yaa ngi koy am ci barkeb Sëriñ Tuubaa ci kaw nag ki koy jàng na sellal xolam bu wër te koy jàng ngir yàlla ak yoneen beeg Sëriñ Tuubaa xasida yi meññet la mu jébbee ci biir xolam bu leen rax lu bokkul kon ci mbindum sëriñ Tuuba xasida yi meññet la mu jébbee ci biir xolam bu leen rax lu bokkul kon ci mbindum sëriñ Tuuba kon nag euh, xasida yaa ngi noonu bayit bi ko waykat bi daane leen am na solo lool mbokk mooy bu leen rax lu bokkul kon ci mbindum Serigne Touba ndax xam ngeen ne léeg nga toog jotaay boo xam ne nañuy jàngee xasida yi dana doy waar lool ndax euh, njàng moo xam ne góor ak jigéen ñëpp dañ lay wër ngay jàng ñuy jóg di di di di def loolu ñuy wax du kët di la wër di fecc mbokk yi loolu war nañ koy moytu bu baax a baax a baax a baax am njàng bu duggee ci xol boroom day daanu di tuuri xéewal mbaa muy mbëkk ay garab mbaa muy yëkkati lu tàng mbaa muy met muy muy def xeetu metti yu bëri yoo xam ne du ko yëg waaye njàng moo xam ne euh, day yëkkati nit ki mu jóg di fecc di reetaan loolu mbokk yi nañ koy moytandiku bu baax baax ñaare ku koy def rek booy xool njàng ma yaa ngi cay dugal leneen lu bokk ak la sëriñ bi wax sëriñ bi nag eh, ay waxam mat na sëkk kenn waru cee yokk lenn kenn waru cee wàññi lenn nañuy jàng xasida yi njàng moo xam ne day yëngal xool te bañ a jàng njàng moo xam ne bakkan lay bégal xam ngeen ne ki nga xam ne day jàng xasida moo xam mu koy jàng njàngum baas wala mu toog di jàng xëy na sax ci ñi nga xam ne dañuy jàng ci euh, mbooloo ki jàng xasida ba mu yàgg muy muy jël turu bi ko ci boole kooko mi ngi dolli ci waxi sëñ bi loo xam ne sëñ bi dafa ko ci ndax mu ngi mel ni ki koy jàng day day mel ni yow mu yor lettre boo xamante ni sëñ Tuubaa moo ko bind ci biir lool nag ngay jàng lettre sëriñ bi kon soo demee ba dugal ci li ci bokk rek xamal ne tugal nga li ci bokkul nit ñi suñu amee jiixa jaaxa ci waxe sëñ Tuubaa boobu xamal ne yaa ko wax waaye sëñ bi waxu ko te sëñ bi waxoon na ne képp ku koo xam ne euh, wax na nettali nañ la samay mbir lépp luñ wax nit ne maa ko wax mu cay am sikki sàkka càkka ku ko wax loolu lu mot a bàyyi xel la ci jamono ju nekk xasida yi nañ koy jàng te bañ cee boole li ci li ci li ci li ci bokkul Euh, soo ci boolee di ci bokk rek soppi nga waxe Sëñ Tuubaa te ku toll ni Sëñ Tuubaa ak li mu liggéeyal yonte bi ak waxam nu mu toll nga xamante ne sa Ibrahima Diop almachan yi doon na ko wax ne ko yaay ki gën a euh, rafetal nit ñi ak rafetal waaye yaay ki gën a rafet nit ñi wax euh, damay fàtte bayit waaye tey ci suba rek ndeysaan maa ngi koy xool waxe Sëñ Tuubaa noonu muy matale ak noonu muy rafete ëpp na mbokk yi ngay koy nga koy jàng di ko di ko soppi loolu danger bu mag la yal nañ ci yàlla kon ñoo ngi yemandi foofu di leen tuubal di leen jégglu di ñaan yàlla mu defar ñu dégg ak topp ci ki Sëriñ tubaa lépp lu ci dëng rek na ngeen ma ko jéggal te xam ne niñ koy faral di waxee euh, lu ci dëng rek na ngeen ma ko jéggal te xam ne walastu bi nax win wala lugatin wala enrudin wala shay in siwal xubd wal bi bëgg rek mooy li nga xamante ne moo ñu ko yóbboo waaye du càgg ne dégg naqu wala luxa wala enrud wala benn ci xeeti fànn yooyu nga xamante ne dafay nit ki xam li muy mën a wax bëgg Sëriñ Tuubaa rek moo ko waral kon lu ci dëng na ngeen ñu ko jéggal waaye lu ci jub tawfiix suñ boroom la ndimbal Sëriñ Tuubaa yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa